leen jaajëfal bu baax a baax internet Leewtoo TV national international ñëpp laay bëggee comme ni ma koy defee chaque grand combat buy ñëw damay daal di dem ci bërëbu champion bu ne adversaire bu daal toog waxtaan ak fansam yi waaye tey damaa nekk ci fans Siteu yi mais ci beneen koñ laa nekk maa ngi biir Parcelles Assainies su ma ko defee ne dina jaaxal ñu bari mais suñu xuusee waxtaan ba ci biir dinañ xam lan la euh, wànq di dox noor walla lan la fans Siteu di def biir parcelle. sëñ Fallou maa ngi lay nuyu. maa sa micro bi. di wax onze billah bismillah indi wàllu yàlla di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. yéex di micro bi. sant yàlla bu baax julli seenante bi sant suñuy waajur bu baax. Mm-hmm. ñaanal sëñ Mountakha mm-hmm. mu yàgg fi lool ànd ak wér. nuyu ñëpp mm-hmm. nuyu itam suñu sëriñ sëriñ Sëriñ Mbacke Alxuraan di mu yàgg fi lool ànd ak sëñ Abdou Karim bu baax taawam soxna May Mbacke. xam nga ñuy ñaanal bu baax ak Baale ñëpp. Mhm. soxna moom ñu ngi nuyu ñëpp daal. Mhm. xam nga di nuyu waa kër maam ngu ne itam bu baax a baax a baax billaay. Mhm. ñu bàyyi la nga présenté wu di nuyu ñëpp wu. waaw man la Fallou Sida. yëkkati micro bi parcelle man la Fallou Sida juddoo ni ma ko waxee ci njëlbeen ba ay fan Siteu te ñi xam nga xam ne mooy a bëri nekk jàmbaa wu des li académique nekk biir parcelle. lan la loolu mën a nekkee. comme nan. fan Siteu biir parcelle. te ah, parcelle am fa adversaire. ñaari ni la fi nekk parcelle fii xamuñu fu bundu kër Papa nekk. Mhm. bari na. fii ñëpp parcelle lañ juddoo mais mënuñu la bundu kër Papa fii la. tey sa micro bi. Mhm. dégg loolu du dara ñun Siteu moo nekk suñu xool moo nekk suñu deret moo nekk suñu fereer. Mhm. man moom laa faral nëbbu ma si dara. lamb ba lamb daj Siteu laa ji supporté. am naa yeneen mbër nag. Mm-hmm. mais ku mu bëreel moom laay faral wax dëgg yàlla. Mm-hmm. nga nekk biir passé di supporter Siteu est-ce que amul yenn risque wala inconvénient yoo ci am. mooy risque àdduna lépp risque la lépp risque la àdduna lépp la mais ragaluñ loolu. Mm-hmm. man Siteu rek. kee jaala micro man ma ma ma nuyu gars yi tuut jaala micro bi ma nuyu gars yi. waaw jaala ma micro bi ma ñu ngi toog. nga waaw ñu lay fay. waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen bëggee di leen ndamoo di leen tiitaroo mhm. wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba di santaat bu baax baax di sant sëñ Siiri Mbaax bu baax a baax suñu wasila la. Eh, bas damaa ne jàmm gën la la parcelle. jàmm gën lu muy parcelle. waaw ñun daanaka man si la doon laa juddoo golf mais mooy loolu jàmm gën laa defee lépp sama enfance mooy loolu fa laa ko passé. waaw diggante si doon jàmm gën parcelle. Mhm. waaw si la di bëri nga ne mooy Papa Sow est-ce que gis nga ci ay risques. non amul ñun chaque jour si risque la ñuy dund. dañuy werante dañuy def lépp Siteu moo ñu ko jaral. Mhm. waaw temps booy ba ñu ngi koy supporté bu muy dugg si laamiñ ba tey bu muy doon luccu. billaahi ñu naan seen mbër bi du dem ñu koy gëm. Mhm. ànd a gëm-gëm bu wér billaahi ba tey jii nii mooy lool ñu ngi si ginnaawam. Mhm. waaw ci luccu laa wax muy xam ne mooy Papa Sow. Mm. ku xam xam ne yàgg na ci làmb am na expérience. muy bëri nga xam ne mooy xale te ñu gis fa ni expérience day xaw a dominer toute bi. waaw ci jàngat nga ci amee. loolu non lool méttiwul ñu ngi koy gérer Siteu am na ay mag yu nekk si ginnaawam ki si mel ni Max kooku làmbaloog la mu ngi si ginnaawam mooy loolu. Mhm. làmb ji dañoo jaral làmb ji nii teg fa jeexal la. Hmm? lu mu jar dañ ko siy def. nga ne billaahi mooy loolu. jàllale micro bi ma laaj ku koy jël. joxal kii gaynde gaay bu andi jëlee micro wala ngeen ragal Papa Sow fekk fi nuyu naa la na xamu ñu bàyyi xel Papa Sow ñu bàyyi xel Papa ku dul Papa sa bàyyi ñu ko xel ñun Sira hmm? Sira bàyyi xel ku dul Papa Sow ku dul Papa Sow Sira bàyyi xel ku ne ni combat bi mën naa ne une semaine moo ci des seen wàccaay ngeen toll non laamu ji instant amul ay a laamu ñu bëre tey si ñu bëre ko tey hmm. Papa Sow bu ko laamu ji biir unité 19 biir terrain seen biir salle ñu bëre laamu ji hmm? laamu ji nii ragaluñ ci dara laam lépp lu ko war dañ koy ciy def laam ji du laam sax sira laam fóodal daraame la billaay wallaay taalaay laam ji ñëpp képp kuy bëggee fóore laam ji laambam la billaay banlieue bi ñëpp laam ji laam xale la xale moo soxla Papa du dara Papa ndaama la ndaamal gosaas ndaama dañ koy sukkar ba mu saf séddale ko nga ne la dañ koy sukkar ba mu saf séddale ko <laughs> fet passé micro bi man daal dafa mel ni xam nga gars yi fu mu ne nii seen yaram dafa tàng fu mu ne nii te combat bi jege seegul ku koy jël seex bi la wala nuyu naa la bu rëy jëlal micro bi nuyu naa la bu baax a baax. sëñ bi maa ngi lay fay. naka mu. maa ngi si jàmm bu baax fan si Siteu bi parcelle naka nga ko gisee. waaw. parcelle tey micro bi. waaw ñun parcelle lañ juddoo fi lañ yoroo fi lañ màggee fi lañ defee lépp mhm. mais tamit xam nga ku nekk am na sa mbër mhm. ñun lañ bëgg xam nga. Ramdaan moo nekkoon suñu mbër Ramdaan dem na xam nga. Hmm, daa daw Ramdaan. non non bul wax ne affaire yi tamit Ramdaan daa daw. non bul wax loolu bul wax loolu. Hmm. Ramdaan xam nga suñu garant la suñu lépp la. Hmm. ba léegi nii nag man la sama waa ji xam nga. mooy loolu. Siteu bi nag bi paase la mais Siteu xam nga ñoo ko bëggal suñu bopp. mooy loolu noonu. waaw ñu ragal ñu fu ne nii mooy lool noonu. Mhm. xam nga waaw mu tagaa nii suñu grand. daajal daajal daajal. waaw da ngay daaj daajal suuf daajal suuf. non kii waaw bàyyil eh. kii. <laughs> ayca ñëwal. waaw boo xoolee conseil mi bëri ko. mu jël temps rek xam nga. bu ko neexee sax mën na jël temps konko. Mhm. mu waaj a koŋ lan koŋ. ni nee na jàpp ba sax ndaama bu fooykaay boobu ngeen ko jàppee daal ba ngeen koy jàpp ko koŋ. kooku di mbalit. dañoo ragal fu day xaar lu mag lu mag lay xaar kooku noonu barki maam Seera Fall waaw kii dafa. fu mu bu fekkoon da ngaa nekk ci biir Siteu cinq minutes avant muy bu loo xam ne da nga ko conseillé boo ko doon eh, bu mu xalaat dara. zéro pression. moom loolu noonu de xalaat ñàkk la. mooy yow. ku dul nga loolu. ñu ragaluñ fuñ jëm de gars barki maam Serap Fall. Mhm. dinaa dellusiwaat ci dama bëgg nga joxaatal ma micro sëñ Fallou rek ma xaw a doxal mu doxal ak moom na loo xam ne sax xam nga man xam naa duma ko wax nit ñi di dégg fu mu ne nii ci wàccaay naka ngeen koy waajalee waxuma sax Siteu mais supporter yi naka ngeen koy wàccalee. gars yi moom daanaka pare nañ muy Siteu ak ñëpp combat boo waaj deux ans ba mu agsi fii boo parewul ka ñooy pare. Mhm. maanaam la laay ñaan. Mhm. mu bëre si guddi ñu seeri waat ko joxaat ko avance. Ah? waaw parce que combat bi dafa métti de. barki yàlla te sa waay li booti si ginnaawam dafa bari. bari. billaay ma waxoon ma ñaax ko wax. mi ngi bu baax a baax a baax a baax nag. lu làmb ji laaj da koy def. Mm-hmm. du de. bu laayee dem day dem bu xaaree xaar moom xam na loolu sax parce que liggéey na ko quoi. Mm. mu gaaw mu yeex arrangé na ko yàlla xam na ko. loolu nga gis. du loolu nga gis loolu liggéey. Papa Sow ñeme na xeex am na endurance combat am de nangoo yàgg. yéen pare ngeen pour loolu. su dee fu mu dëkkee. jàmm gën la jàmm gën xuus di ñëw bu su meekoo da ngay compter papaar yi mais moo jaayante ba agsi fii. tey micro bi. moo jaayante boppam ba agsi fii. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ay Papa Sow cons ak nangam nangam bu arbitre sifflé daal. Mm-hmm. Siteu dina def li mu war a def ñu dem ñibbi incha allah yàlla defal ñu ndam. incha allah amiin lañ tàmmoon gis. waxuñu ko pour dara ba dañu ko tuddee ko li nga xam ne mooy phénomène de Lamsar Siteu bu ñëwee stade macha allah day fees dell ñëpp a koy topp ci ginnaawam ñu gis fu mu ne nii làmb ci supporters yi bu seen mbër daanee ñu yàq bu seen mbër daanoo ñu yàq lan nga gis ci loolu. moom jaaduwul jaaduwul de mais tamit nag booy 19 bi maa gis ci TikTok bi ñuy wax rek. dambaar ñu ragaluñ de. Mm-hmm. billaahi wallaahi tàllaay. nañ bàyyi ba bis ba rek. ñoom ñaar ñooy dugg si biir géew bi si de si li mu war a nekk. incha allah man ndam rek laa koy ñaanal. yàlla xam na ni guddi yi ma toll ni mënu moo ko sax xool nii carrément ndax yërëm. ndeysaan te damaa xam lu mu daj bi liggéey na def na lu nekk. billaahi wóor na Serigne Bamba. dañu koy ñaan ñu koy yéen yam ndam ci combat bi dafa bari. barki yàlla ndaw ñi ñëpp man billaay fu ne laa jotee appel ay mhm. extérieur fu ne ay vocal mhm. yàlla xam ne ko di koy ñaanal ñoo xam ne xawma leen sax mhm. xawma fu ñu jëlee sama numéro di koy ñaanal billaay wallaay tallaay ñu koy yéen ndam bari nañ man loolu rek laa koy ñaanal mu am ndam kese sëñ Fallou dañoo ne fa liir bu neexee nday moo jàpp ca mbagg ja ba na yéen supporters yéenay mbagg ki nga xam ne nga xam ne mooy Siteu jour combat ba li ñuy gis mooy mbër bi moo war a bëri ak adversaire ci biir géegu ñoo fa war defante contrairement supporters ñooy defandi seen biir yow en tant que si yow jeune. non loolu supporter en tant que jeune. yow naka nga gisee loolu. ngeen di waajal bis ñun ñooy ñëw duy esaat bi ba mu fees dellu si kàttanu suñu borom yëngal si daan ñu ñibbi. ñun loolu moo ñu intéressé coow indiwuñu fa leneen indiwuñu fa. ñun daal dinañ toog jàpp suñu boobu duñ tooñ duñ def dara. waaye ku ñu wokk tam dañuy. dañoo dàq sañse ñoo sañse ba sañse fu mu ne dara nekkul. waaw waaw loolu ñoo koy jënd bee ñoo koy feesal. parce que parcelle mu xaw a Papa Sow amul xaalis. Papa Sow mu amul xaalis boppam parce que ñu ànd ñu amul xaalis ñu ay barak lañu dëgg ñun jooyuñu lool. voilà. Papa day. am na père ba. ah am na ñu bari ci passé yow nga ne Papa Sow day saagatu ñun ñoom dañuy ñoom dañuy saagatu. naa la wax benn affaire bu ndaw. sollicité am na Baye Fall it. waaw te ku ñu am Baye Fall it ñàkkoo dara. ñàkkoo dara barke Sëñ Touba ku tey yooyu noonu la rek lañ ko bëggee bàkki moom waaw toj sa mbaare mu na bàyyi àdduna ay sëñ Ba affaire bi kii la kii kii la kii la billaahi Mansour fu ma toll nga wax ma ko dégg aywa ñu ne sëñ Fall nga ne. tedd la am yow mhm. mooy bëree. nga dem bundu gaaleem doo fa compter Ndiaga Ndiaye bu fa taxaw te day duy esaat ba mu fees dell. Mhm. ba Serigne Touba lu waral lool ay jàmbaar koy supporté. Mhm. boo demee jàmm gan ay jàmbaar rek ñooy supporté Siteu. ay gaayinam ay jàmbaar lañ. ñu mën a yaatal nit lañ wax dëgg yàlla ay nit yu baax lañ. la bi ma wooy wax ma affaire bi laa woo mu ne ma yow bul xalaat defal barki yàlla bul xalaat la. ne la yaay samay tànk yaay samay samay nopp sama làmmiñ teg defal loo def la ma wax ñoom abu gaay noonu ñoom maama Lamine maa koy ñaanal moom tamit. an lañ ko jàppal dan mu bëri parce que moom tamit li mu nekkee métti na. waaj combat mënoo bëri tam dafa métti quoi. parce que sëñ Touba maama Lamine maa ngi koy ñaanal ñaanal tamit mu daan Pam Ndo incha allah. Hmm? gis. fu mu ne nii moo taxaw seen kaw de. non du dara abu moom dama koy encouragé rek xam ne làmb noonu la. da def di daan. ki bëre spécial bi abu da ko daan jël bu rëy loolu dara si làmb. tey keroog moo ko bëre laal spécial. yaa ngi gis am na ndam abu bëre na ñaax day defaru jiwaar rek suñ borom may ko ndam kese mais Siteu moom Siteu dama la wax lu leer barki arxuraan ndam la ko ñëpp yéene man ndam laa koy ñaanal. mooy li ma la wax rek tollatuma sax foo xam mën naa xool wala lii wala laa fi toog. waaw bu bis ba jotee na ñu def li ñu war a def ma koy ñaanal ne suñu borom defal ko ndam. ragalul dara. si nga sañ na ragal du ragal sax. bat Serigne Touba léegi si la ragalul kan mooy ragal léegi. ah man xaw ma ko de man daa wax ma te si la du ñëw si làmb mu ko ñëwul si làmb wala signature indi kanamu yërëmtalu. lim teg lim teg jëf boppam jàmm boppam waaw te bu arbitre sifflé billaay wallaay talaay yàlla na ko yàlla kattanal may ko ndam man loolu rek laa koy ñaanal ñaanal ma ko leen Siteu du ay Papa Sow la war a bëreel sax ñu war a bëreel ñu ngi si kaw su bëggee àgg si kaw day lijjanti Papa Sow dem si kaw man loolu laa ko yéene parce que Serigne Bamba na daan Papa ñu seete leen ci kaw boobu laa jëm balaa nga naan naam ne fa yaa may dee te ndox du jéggi pax Papa Sow ngeen am fu na naam de Siteu nee na naam moo tax mu nekk fa fu mu nekk nii nañ dellu si waat nga xam ne mooy phénomène bi am ci diggante supporter yi ak supporter yi sa laa du ma ne mbëri supporter yi supporter yi ba keroog pas jaaj duñ du ma wax turu benn mbër ba keroog bi passé moindre dara rek affaire bi day indi drame boo xam ne kenn du xam fan lañ koy waxee yéen en tant que jeune ku ci nekk yaa mën a conscientiser sa moroom lan ngeen wax adversaire adversaire opposant mën wax ñun bu si jàmm la ñëw dinañ sangu ba seet sol baax gunge ko nag waaw ëmb gunge ko ñaana ko suñu borom defal ko ndam Papa Sow coow lee fi rek mënul def arène nationale bi lu yéem gars yi mënu ko waaw moom li mbëri di ndaw yi indi sax moo ëpp li muy indi. Hmm? ñun daal dinañ ñëw bu ñëwee si arène nationale di nga xam ni tarkindaa yi ñëw nañ. barke alxuraan. damay agressé wala baaram yaay ki ndaa yi sax dañuy ñëw. nga ne lan dégg ma dégg ma waxaatal. man la yaay ki ndaa yi dañuy ñëw. yaay ki ndaa. waaw. <laughs> si te nag gis nga si te nga man waxee si te man mënu ma cee sori dama soree. lañ ma cay tegal du ma neex léegi bàyyi ma bàyyi ma bañ a <laughs> mooy lan maam ki ndaay yurki ndaay mooy maam yi. maam wax si te yow. Ah, day loo bëgg mu bëree ko. te bu mu xalaat amul xalaat papa day bàyyi àdduna. àdduna. waaw day baax àdduna gars yi waxtaan nañ ba pare. waaw mos a yéeg ba yéeg yow. Papa mosul yéeg. Eh. Ah. Ah, waaw waaw. nekk nii fu mu nekk waxtaan ñu waxtaan fu mu nekk nii. Hmm? Siteu dafa nekk ci bunt Papa Sow nekk nekkoon Siteu bëgg ko faa jëlee pour dugg. loolu du nekk lu yomb ci diggante ñaan ñëpp ci fépp nag. lamb lu yomb amu fi. Hmm. ku lu yomb da ngay dem defi leneen. Hmm. mais Siteu lan lan lay indil gan gi jour boobu. loolu Siteu moom naa la lenn du question ko dañ naan ko nii ngay bëree wala lii wala laa. Siteu yàgg na bëree. moom yaram bi foo ko laal day bëree. yaa dégg. arène nag moo doy waar am na loo xam ne bu toppee sa ginnaaw da ngay bëree assurance. mais Siteu man barki arxuraan bu bëree woon ba nu wër ko noonu damay nekk en l'aise parce ko yàgg toog seetaan muy kontaan. Mhm. te si jamono yii nii rek. Mhm. léegi la nii rek boo amee foo toll si làmb da ngay bëree assurance kese mais yàlla xam na ni billaay wallaay tiitu ma si moom mu bëree Papa Sow tiitu ma si lenn. Mm-hmm. man bu ma xëyee ndam ma toogee café ga ndam laay gis fu mën di nekk mm-hmm. ndam laay gis. temps bi ñu mayoon daf ñoo xaw a xoj tuuti ku ci am lu ci ciy sànni mu sànni ko ci balaa ñuy dëj. mun tagaa ci sànni. waaw soxna si lay dégg. Mm-hmm. di nuyu bu baax a fekk la fii ci biir supporter Siteu lan nga ñu mën a wax ci Siteu. waaw lu ma la si mën a wax moom bariwul quoi. Mhm. ndax yaakaar naa ne moom mbër la comme mbër yëpp xam nga yaa ngi dégg mbër la comme mbër yëpp. Mhm. xam nga fu jaar tamit fa la jaar. li gars yi fay am licence moom loolu la fay am licence kon làmb ji kenn ëppale wu ko fi dara. loolu ñëpp xam nañ ko mu am combat diggante ma Papa Sow. yaa may dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëpp xam risque mu nekk ci combat parce que ku ci nekk da ngaa bu sa morom taxaw na nga gisee combat wu boobu noonu. waaw mooy li ma la wax rek moom amul lu muy xaar quoi. Mm-hmm. waaw moom amul xam na li mu war a def. Mm-hmm. xam na lu ko war a quoi mais tamit mooy loolu saa yu geesoo rek seen ñu ci ginnaawam. Mm-hmm. ñu naaj ñun ak moom. parce que sëñ Bamba daw ñu si dara. ñun fii lañ dëkk Cambérène. fii lañ dëkk parcelle amuñu sens interdit fenn. yéen ngeen gën a jege sax la moo tax ngeen di. si boole si doon waaye moom dara Papa Sow. jege a far moom Fass la jóge ñëw fii. nit léegi ngeen bu wax ndey ak baay Papa Sow dëkk faral keneen Papa Sow dëkk fi de Fass la jóge ñëw fii nii quoi. du ma dëkkatul Fass si moom sax man xam nga jëmu jëmu. booy yëpp laa wax moo loolu garaaw. booy yëpp parcelle lañ juddoo. mais amul ku la ci mën a wax bu nu gële Papa Sow fii la ubbeekoo. lenn daal laa mën a wax yalmin bi maa ngi koy ñaanal ba sa naa fa ay fans. si te ragalul fu mu dëkk de ne la ko ba sa biir gaale am naa fa ay fans. nice man daal xam li ma ciy wax bariwul ko waaw maa koy ñaanal xam nga yàlla defal ko jàmm yàlla may ko ndam mu nekk lu gën ci moom xam mu jàll ci leneen ko waaw mm. parce que combat bi yàgg na torop yàgg na torop booba léegi mu ngi waaj barke Serigne Touba booba léegi mu ngi waaj gaan dof mm. bi bilaay dañoo sonn mm. instant bii nii bilaay na laa mujj ñëw rek xam incha allah yàlla na jot ak jàmm daal di ko jàll ak jàmm daal di wax leen suñu Fallou sa doo jël ñi jéem a tëj émission bi bi ñu a xoj ban message ngay lancé fu mu yàlla yërëm ko yërëm ko mhm. xaare ko àjjana kooku du si ñun saa su ne dañ koy xalaat man mhm. ma bokk si ñu mujjee vocalanteel ak ñu mujjee waxal téléphone yàlla xam na ko mhm. xam nga mu amul lu ma doon wax chaque jour o waroon fi ñëw sax yendu sil ma ama suñ borom dogal li muy dogal moo tax kooku man ci àdduna wallahi ruus naa sax toog si basam ba jug te ma ko ñaanal noonu yàlla xam na ko waaw di nuyuwaat ñëpp nag may may na ma nuyu xam nga gars yi gars yi. ñëwul ndax dina xaw a Kolifay 2. Mm-hmm. ak Abu Ndiasse. yaa ak Serif Seexu Maama Lamine maa ngi bu baax. Mm-hmm. Babaas ak Pape Laurent maa leen di nuyu. di nuyu ak Malick doomu ndeyam mm-hmm. comprendre nga di nuyu Tafakara billaahi moo ma jox bii maa ngi bu baax suma xaraat sama gaañ maa ngi di nuyu gars yëpp bàyyi ma kenn baawaas borom dal yi maa nuyu. Mhm. bat sëñ Bamba di nuyu gars yëpp mhm. bàyyi ma kenn. Assane waa Assane Assane Seras maa ngi koy nuyu moom Maysa Maysa Seras maa ngi koy nuyu bu baax samay gaayan lañ maa leen di nuyu ñoom ñëpp ak Serif Cheikh Maam Lamine maa ngi nuyu. di nuyu Pimbi ak Fallou Fodo maa di nuyu ñoom ñëpp. Mhm. di nuyu waa jàmm gën gi yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu sëñ Sidi Mbacke bu wér di koy ñaanal waaw mooy loolu noonu Papa Sow barke Alxuraanul Karim ëppalewul Siteu fans fii parcelle. Hmm? billaay wallaay li ma la waxee defal micro trottoir nga xool. Papa Sow li muy indi si mbooloo xaj na si biir magasin bii. <laughs> yow tamit eh bul saboté waaye. magasin dama dem seeraan ko moo ko Ama Balde. daa woote wol bay bëgg a dee gars yi ko gis nga. Mhm. Ama da koy yëg mu ongu wàcce. ñun xam na nu mu demee. nga jaaw si la nar a jaaraat yaa ngi dégg man damay ñaanal rek Siteu yàlla suñu borom suturaal ko defal ko ndam parce que bëgg na ko soxla na ko boo xoolee yoonu lamb sax nga xool yoonu làmb logique Siteu a gën nekk si yoonu dem papa boobu ba léegi. bàyyi saa koy def pap mi yoon mu defaral la. Mhm. xeebu ko. billaahi dëgg la wa barki yàlla en tout cas daal lu mën da ay sant waa jàmm gën gi yëpp bàyyi ma kenn di sant Dumbuya magu Sita di sant Jili Seck bi tëgal Sita ak magam Abibulaay maa leen di sant bu baax di sant Vieux tamit rakk foode Vieux Dramé ñun kooku la ñu xoolee Fodé man kooku laay xoolee foode su moo gisee rek gis naa Fodé yàlla xam na ko bàyyi ma kenn nag sant naa ñëpp ñoom Baba As Laurent Zoka ma kenn maa ngi sant gars yi Assane Seras ñoom ak Thiatou Fora tamit. ma booy sant sama gars yi yaa ngi woote wàllu nag dafa jeex na. ñi ñi ma lay woo nii eh, wàllu de samay deret la ah waa kon baax day tëj émission bi sama deret ñi may woo nii noonu lañ nekkee samay deret. dina ma woote ma wàllu de ñun duñu woote wàllu de ñun mat nañ si de mooy seen mbër boo xam si su loo woo mu wuy si la si. Mm-hmm. su ñëwee nga bayal sëkk. ma nga gis si de mu wéet yow. si de bu ñu woo fenn mu wéet mos nga ko déedéet. su dee bu màggali jeesa boo demee Galeem da ngay yaar ni fii bàyyi man la su waay. xam nga si Siteu Siteu la baari mu naan tës tës. li ko benke moo ko ñeenge. li ko benke moo ko ñeenge. ragaluñ lool lool. yii bit naa ci yéen. suñu toppee waxtaan bi waxtaan bi day. Abou Ndiassé maa lay nuyu bu baax. Seydou Dieng Abou Ndiassé rek yàlla baax na day ñëw billahi ñaanal Babel waaw suñu. di ñaanal Babel bu baax mu ñuy soor ak jàmm. dina baax suñu suñu toppee waxtaan bi waxtaan bi day neex fi la ñuy fanaan te temps bi ñu mayoon daf ñoo xoo tënk maanaam technique bi ñu may woo. sans rek hmm? dañ leen di béggee bu baax a baax ñi toog fii cat ba cat ñëpp maa ngi leen di béggee ah di am ci ñoom cofee bu baax a baax di leen naan jàmm ci yéen kenn du waa parcelle waa parcelle daa nga gis tourné fii gisu non tëj naa tëj naa tëj naa sëñ naa da ngay da ngay tun naa jox mañ mañ nuyu na salaamaaleykum siyaar naa leen de ñoo la baax TV Leewtoo TV waaw Sida ñëwal loo xam ne Sida non Sida champion la hmm. combat bi loo ci xam combat bi soobee yàlla day jàpp daan barke alxuraan. Hmm. moo woon gan gi foofu. bala nga koy conseil Siteu boo xam ne conseil. mu tey ànd ak dal xam ne bàyyi adduna bi yëpp moom lañu àndal. Hmm. Papa Sow adduna bi yan. adduna bi yëpp moom lañu àndal. dina baax bu nekkee 100 pour cent déggoo ma de Papa Sow 1 pour cent la si am. 99 yëpp Siteu la moo fi ne barke yàlla lu leer bi laa yow. déggoo li ma la man kese. man dafa ñëw fekk. kese amul leneen. billaay si te kese. sëñ man dafa ñëw fekk fekk fekk may tëj. mais damay di bëggee bu baax ñu fi toog ñi cat ba cat ah sëñ Fallou mention spéciale kenn du moom moom moom maa ngi moom petit ba grand waaye comme dafa tuxu dëkk yë xaw ma jàmm gën mënulu ma ko dara dama koy jàmm gën nga rek yow tuxu nga dëkkuma yëmbal naa la ak waa baax fa dëkk samay nit mais dëkkuma yëmbal sëñ Fallou daal ah, da ngaa déserté man parcelle laa la xamee ñi nekk petit ba grand nag léegi fii laa juddoo fii laa màggee fii li ma lay la wax Papa Sow dina dégg lii yëpp dama mbarum tolom gi. booy waaraate na di war gaynde doo bëri mbooloo loolu. Siteu yoo laay waxal. Fallou ngi nii passé la juddoo passé la yoroo passé la màggee mais bëggul nag ku dul yow ñun dañ koy seere tey barki maam seere Fall Fallou loo ko wax mu ne Siteu ñun tamit baa ñoo tax ñu bëgg la Fallou Siteu Fallou moo tax ñu bëgg la barki maam seere Fall Fallou bàyyi Fall la te yow lay bégee di la wax nag loo ko jàpp doyul. ñun nag ñooy si ginnaaw Fallou Siteu moo ko gën a bëgg boo xam moom mii ci noonu la ñuy demaat dama koy bëggee bu baax a baax Fallou ah, bëggee naa ñëpp ah bëggee ñu fi toog ñëpp waaye i coupe bi indil ñooñu ko bu ñu fi indi benn problème nag ASC Ego final inshallah ASC Ego final ASC Ego kese bilaay deret la. da ngay tudd xol eh da ngay laal xol bi da ngay laal xol bi. xolu gox bi nga laal. la eh da nga doo. bala ma tëj lan moo koy indi. waaw damay jooy noonu laa def bëgg leen bu baax a baax comme ni ma koy defee ah chaque combat. maa ngi woon si fan si tey bu subaa fan si Papa Sow yi laa jëm kon noonu laa jox leen. ñoom nga waroon njëkk a jël sax ñun ñuy nga ñuy soog a jël boobu lay neex. ay ñoom zoo kaanaa di banu banal te kooku jaaxadu mburoog ton la kooku luñ koy wa